muy tey ci vendredi bi dafa am meeting national. ah fan la. Euh, meeting bu ñuy war a amal fii ci place euh, de la nation si aux dernières informations yi ma jot donc euh, day am meeting meeting bi pour dajale parce que tamit comme candidat bi wër na fépp te man bokkoon naa ci ñi ànd ak moom di wër ah waaw donc vraiment Euh, tooguñu woon dakaar rek euh, di kii dañu dugg ci dëkk bi euh, def Louga def Ndar def Tivaouane dem Fouta dem Linguère dans le Ferlo dem dans le Fouta ba tam Ourossogui wër foofu yëpp. lenn rek a ma jaaxal gisuma ku dem Bakel ci candidat yi. gisuloo. ku benn candidat bu dem Bakel. ah bon am na. ah mais Amadou Ba fu mu jaarul Bakel. damay laaj. ah da ngay laajte waaw ah, non yàlla seul. le candidat Amadou Ba foofu yëpp jaar na. ok super ñun moom vraiment. c'est une matal waaw matal nañu Sénégal. ok wër nañ ko. fa hmm. dëgg yàlla man nag wëruma lépp. Hmm. mais def naa une bonne partie du nord du Sénégal. léegi ci sprint final bi comme tey ni ko le professeur euh, waxee ñun fi ñuy waxee rek lenn la maanaam dañu nekk ci dernier jour dernier jour bi pour ñun wax ak sénégalais yi rek moo fi des. dajale nit ñi posé waat sénégalais yi ay question wax leen yan enjeu fi mu nekk nii mooy enjeu bu dimanche élection bii ñu jëm dafa différent ci élection 2000 bokkuñu ndax en l'an 2000 man fekkee naa élection dama ko couvrir sax te dama xam ni boobu élection après 40 ans wu parti socialiste Sénégal yi dañu namoon alternance président Diouf nekk candidat alors que mooy président sortant boobu alternance bi 19 mars 2000 mu am avec le président Abdoulaye Wade donc foofu nii la demee benn opposition moo am peuple bi soxla alternance nga xamee donc ko doon gis mais malgré cela le président Diouf amoon na 40 pour cent au premier tour hmm. en 2012 le président Abdoulaye Wade avait fait deux mandats mu am ay mouvement yu jug xeex troisième mandat bi mu bëgg force forcer dem troisième mandat opposition bi sénégalais yi daal di ni ko noonoo waruloo jàll yóbbu ko deuxième tour moom président sortant bi ak le président Macky Sall mi ko gagné ren jii c'est différent en 2024 l'élection ci sprint final bi ñu nekk bokkul le président sortant président Macky nekkul candidat dafay dem incha allah le 2 avril dafay dem vraiment après liggéey bi mu def yëpp ci réew mi <coughs> mu am beneen candidat bu mu samp moom mu samp ko coalition samp ko yeneen sénégalais samp ko muy le candidat Amadou Ba candidat du pouvoir ak de la majorité présidentielle et des sénégalais ak beaucoup mouvement citoyen yu ànd ak moom war a jongante ak opposition yi en 2024 on parle des oppositions ñetti opposition ñoo fi am en tout cas mën nañ leen def ci ñetti pôle dafa am une opposition boo xamee ni elle est l'opposition radicale maanaam depuis 2021 moom dafa am discours boo xamante ni moom c'est c'est un discours radical mm-hmm. boo xamee ni vraiment am na yu mu indi yu bëri ci réew mi kenn du ci dellu si mais malgré que il faut la déplorer di ko regretter ba tax na boobu opposition c'est l'opposition radicale léegi mu am une deuxième opposition qui est l'opposition républicaine moom xam na ni nguur ci kii lañ koy jëlee ci ay urne de façon démocratique lañ koy jëlee et ñoom tamit seen discours construit nañ ko am nañu seeni candidat ak ce que j'appelle l'opposition citoyenne maanaam y a des mouvements de citoyen euh, soutien citoyen des personne des citoyens comme ça yoo xam ne de la société civile yu nekk candidat don tey jii nii may ma foofu rek ma terminer ci enjeu yi enjeu bi tey du question dañuy sanctionner benn président wala duñ ko fiy jëlee wala dañuy def dégagisme noonu non amul ku ñu fiy jëlee ki fi nekkoon pare na ay lengeem da koy joxe dem kon tey jii nii comme nekkuñu ci dégagisme dañoo nekk ci tànn tey Sénégal dimanche ak jàmm ak salaam maanaam samedi ci guddi sénégalais buy nelaw nekk électeur yore sa carte booy xalaat dangay xalaat dimanche bu jotee sama carte bi bu ma ko dugalee. kan laa koy dugalal ak ban impact ban njeexital lay am ci réew mi